asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di leen ziara di jaajëfal bu baax ci topp gi ngeen di topp vidéo eh, tey nag vidéo tey bi ñu ngi ci bëgg a eh, waxtaane email maanaam numéro email bi nga xam ni ci téléphone yëpp lay nekk numéro email téléphone boo gis daf ciy nekk eh, suñ ko mënee tënk daal mooy identité téléphone la maanaam benn téléphone du ko bokkule ak moroomam benn téléphone téléphone boo mën a jël boo ko génnee du bokk ak moroomam numéro IMEI nag dafa am solo am solo goo xam ni eh, eh, maanaam boo amee sa téléphone li gën mooy nga fexe ba eh, jël numéro IMEI bi nga bind ko fen walla nga wala nga enregistré ko fenn boo ko bindee fenn wala nga enregistré ko fenn am na ay bindukaay par exemple lu neexee nga def ko contact ci sa ay numéro nga ko ci sa compte Google neexee nga def ko benn document nga enregistré ko ci sa Google Drive bu neexee nga def ko message nga envoyé ko ci sa compte Facebook compte Facebook moom boo bokkut ak compte WhatsApp ak yooyu noonu nga xam ni ñaare su soo ñàkkee téléphone yi nga ci day day dañ compte Facebook moom. message yi ñu ci amoon daaw ak maanaam yu demee ni may cinq sa message yi ñu ci ak yooyu yëpp bu la neexee da koy fuyote donc loolu daal ay ay jàppukaay la yoo xam ne si ku mu neex mën nga koo jàppee sa compte IMS. loolu daal ay jàppukaay la yoo xam ne si ku mu neex mën nga koo jàppee ku mu neex tamit euh, nga bind ko nga bind ko ci sa agenda wala nga bind ko foo xam ne si daal fa ngay faral di garde say numéro wala tamit nga mokkal ko ndaxte comme ñi ngi mokkal numéro carte d'identité yeeg numéro compte yeeg yëpp eh, daanaka ñoo yem rek moom donte gudd na moom moom numéro email bi moom gudd na trop waaye ku ko bëgg a mokkal tamit mën nga ko mokkal boo xam ne sama téléphone bii lii mooy numéro bi nga xam ne bokkule mu ko benn numéro euh, numéro email bala ñu see ñëw nag ñuy masaw mbokk yi mbokk yëpp ci tolluwaay bi nga xam ni tolluwaay bi nga xam ni ci la mi toll jamono yi muy coronavirus bi nga xam ni lëmbee na àdduna bi agsi na suñ réew bañ am ci ay quelques kaa cas yi xaw a fasantikoo yal na ko fi suñ borom yamale sa saafara li fi jotaam waaye nag ñu ci def ay ñaan rek kenn ku nekk moom ngay def ay ñaan yu baree bëri ngir suñu borom wayafal nattu bi nga xam ni moom lañu ñu nattu ñaan yi nag dara gënu ci am doole ñaan yi yiñ tibbe ci alquran ak yiñ tibbe ci sunna mën naa cee joxe wàllu quelque rek muy benn entre parenthèse xam ne si maanaam xul a'uuzu bi rabbil falaq kenn ku ne mën ngaa def boo jullee ba pare nga jàng xul a'uuzu bi rabbil falaq benn yoon jàng xul a'uuzu bi rabbin naas benn yoon jàng ñaanu sunna gu am doole gii di bismillahi alladi laa yaduru ma asmihi shay'an fi l wala fi samaa wa huwa samiu al nga daat cey teg auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq saa boo jullee nga wax ñeent yooyu bu nekk benn yoon am na solo trop benn bu nekk rek musluwaay gu am doole la rawat na nga boole ñeent yëpp te ñu ci fagaroo ni ñu ci ni ñu ko docteur yi waxe li ci docteur yi wax lépp ñu respecté ko te moytu contact yi joxe loxo yeeg jegeñe geeg ak di raxasoo saabu yépp conseil yi ci docteur yi joxe daal ñu topp ko bu baax a baax boole ko ñaan ak moytu suñ borom mën nañ ci dimbali incha allah kon vidéo tay bi loolu lañ bëgg a indi muy numéro email <coughs> da def étoile ak dièse nga teg ci zéro tegaat ci six étoile dièse zéro six euh, boo xam naa nag li gën a kii li gën a euh, pratique mooy su fekkee yow da ko bëgg a bind boo ko génnee ba mu génn day nekk ñaari ligne waaye danga koy da nga koy capturer boobu boo ko capturer nga xam ni eh, eh, di nga ko mën a bind normal ci sa tey gi daal waaye boo ko bàyyee noonu rek ci ci écran bi ti capturer woo ko mën na laa yàkkam mën ngaa yàkkamti ba tax boo ko dee copier di nga ci bàyyi benn chiffre boo ko génnee ba mu génn da koy fexee capturer nga xam ni soo ko bëggee bind fenn wala soo ko bëggee enregistrer fenn dina dina la yomb. boo ko bëggee xool foto bi rek ngay génne foto moom heure boo ko bëggee xool xool ko numéro IMEI nag lu am solo la comme téléphone benn bokkoo ak moroomam tey bu sa téléphone réeroon mën nañ cee sukkandiku ba gis sa téléphone mën nañ cee sukkandiku ba def lu bëree bëri ci sa téléphone maanaam daal IMEI yi day day day loo xam ne si lu mat a jàpp ci téléphone la lu mat a jàpp ci téléphone la euh, kon ginaaw boo defee étoile JS 0 6 da nga ciy teg JS voilà boo ci tegee JS mooy interface non non dama ci étoile JS 0 6 JS voilà étoile JS 0 ak dièse mu génn ci téléphone yëpp la valable na boo ko def rek email bi génn automatiquement comme mbii nii nii léegi nag boo ko capturé na nga xam ni capturé nga voilà capturé nga ko am nga ko sa kii nga mën ko effacé léegi mu ngi ci sa euh, galerie saa boo ko soxlaa nga fekk ko sa galerie foo ko bëgg enregistré nga denc ko fa mu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di la ñaan nag yow mi nga xam ni abonné go yaa ngi sooro Euh, accès ci chaîne bi maa ngi lay ñaan nga nga abonné ci chaîne bi bu ko defee vidéo bu ñu indeete rek eh, nga jot ci après abonnement bi nag nga fàtte nga bañ a fàtte ba cloche de notification bi cloche de notification moo lay permettre bépp vidéo buñ ñu dugal euh, mu sonné ci sa portable nga xam ni am na vidéo bu ñu dugal tey ci kër gi ñu leen tàgg fi ba beneen vidéo incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa